waaw junj nañ ko fi léegi surtout loo xam ne aju na ci wàllu wàllu suukar si mel na ne manqué na ci manqué na ci dëkk bi euh, manqué gi sax ñu bari nee na ñu manqué wut waaye dañ ko denc loolu nag euh, dañ ci euh, dañ ci ñaan suñu mbokki commerçant yi nga xam ne aussi suñu ay mbokki taalibe lañu suñu ay mbokki jullit lañu ñu xam ne weer wi du weer woo xam ne weer wu ñu wuti ab xaalis la. weer la woo xam ne weer wu ñuy jàmm yàlla la weer la woo xam ne weer wu ñuy yéwénal suñu diggante la weer woo xam ne weer wu ñuy yéwénal mbir gi la kon nag bu jullit yëpp nekkee di woor euh, aajowoo suukar ci lu bari ci ci ci weeru koor gi ndax weeru koor moo tëddee noonu kon jàpp naa ne li ñu leen di ñaan daal moo di ñu jàppandal nit ñi loo xam ne lépp loo xam ne mi ngi ci seen ay loxo ba nit ñi man cee bañ cee mën a loru loolu mooy li ñu leen di ñaan ah, xam nañ ne autorités yi liggéey bañ cee def ñoo ngi ko war def waaye ñun nag en tant que organisateur en tant que également famille religieuse am nañu sañ-sañu ñaan suñu mbokk jullit leen kat bu ñu sañoon mbir yi nii mu tëddee du ni du ñu tëddee lépp loo xam ne waaye am na ko ci ci ak ci lu mën a doon nga denc ko ba weer yu jàll foog naa ne loolu mooy loolu mooy di gën a rafet te loolu aussi mooy li ñuy séntu ci euh, ci ñoom.